mbokk yi Ousmane Sonko def nañ ko mandat de dépôt ministre de l' intérieur tas na parti Pastef maanaam parti ba amatul mais lan moo mën a génnee Ousmane Sonko ci kaso bi mbokk yi juge ya dem nañ vacances yaakaar naa kon lii mooy cooki fin jàmbaar ji toog di Serigne Cheikhouna Kajoor ne ma kaay ma wax la lan moo mën a génnee Sonko ci kaso bi mbokk yi jëmm ji surtout sëñ Mbacké Kajoor la surtout sëñ Touba la waaye borom xam-xam la dafa am baatin bu yàlla def ci moom. mu ne ma lii lépp gisoon naa ko waaye ma noppi woon kaay ma wax la nag sama noppi li ko waraloon ak sunkoo tey lay xam ne mën na ci bii boor te mën na cee bee boor mbokk yi secret bi waxtaanee Sonko tey bi génne Sonko loolee la ñuy waxtaanee mais laata lool ñu bàyyi sëriñ bi mu nuyoog askan wi ñu soog a ñëw waxtaanee lan mooy ndey li xew Sénégal actuellement. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim subhanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax <coughs> di ñaan ci yàlla réew mi jàmm di ñaan ñi nga xam ne caabi da leen a ginnaaw suñu borom jënd leen ci jàmm ñu tëdd ci lalu hôpitaux yi suñu borom yëkkati leen jàmm ñu jiitu ci suñu borom yërëm leen taxaare leen àjjana ci barke Seexul Xaddim di ñaan yéen ñi seen tànk yi ngeen ñëw fii ci dëkk bi yàlla nañ doon tànk yiw ak barke di ñaan ci réew mi jàmm bu baax a baax a baax bisimilah euh, sëñ Cheikhouna Mbacké ku xam ne ne kilifa nga am na lu mu sa maam nga tegu ca loole mbirum Sonko li nga ci xamoon bëri na bëri na ay sëriñ soo xamante ni sax daa nga leen woo di leen joxe tegtal waaye su man laa waxal ci écran nga ne ma lii dee su ko wax ci écran jàpp gi lépp gisoon nga ko tey yooyu est nga cee ñëwaat andiwaat ci ay leeral. waaw Cheikh bi li ngay laaj lu solo damay wax tuuti xam nga doomu aadama doo gis nit dara di ko faagaagal nga ne nit lii da koy faagaagal. Sonko ak dam ko kasoom dama ko gisoon bu yàgg waaye duma ma ci du jékki-jékki jéen di ci wax. xalaatuma ko. ndax lu metti métti Sonko am na ay waajur am na ay doom am na ay soxna. tey loolu su ma jéenoon wax ko bu doon lu waaye xam wax ko rek. kon àdduna tukki. ndax tey su ma jéenoon daan ne mii gis naa day dugg kaso tey. te ban ko gisee du jamono jii. su ma wax ko àdduna mi tukki. ndax Sonko njaboot yooyu mu am tey su ma ne woon Sonko dañ koy tëj mën naa am yaayam am karijaak wala soxnaam am karijaak wala sama njaboot gi kenn ñoo xam ne am naa njaboot goo xam bëgg Sonko ba boo waxee dara ci Sonko rek ñu mer kon nag du ma def loolu loolu nag li koy maye muy seet xam dëgg dëgg seet mooy maye loolu nit ki nag boo nee sëriñ wi da ngay sëriñu asraar uhuh. doomu aadama yaakaar la uhuh. soo ñëwee ci moom war nga koo mën a seetal wax ko tey ba bis man damay seetal nit bokk ban bis ngay jënd àdduna wax ko sax ba ne ko bu dee luñ koy def ci yaram dama koy wax ki koy def mhm. waaye duma ko wax di yàqu mbokk waaye bis bu ñëwee ci man mii mhm. si sëñ bi danaa la xamal dara mhm. wallaahi warabul kaxaba képp ku ma seetal ci àdduna dootoo taxaw li ci benn sëriñ di seetlu ndax loolu dama cee am basiira liggéeyal ci sama borom am fu ma toll moom kon nag lii na loolu nag tax toog fii di di defuma ko de toog fii di di waxantu ni loolu du waxantu de am lu nekk ci man uh-huh. moo tax ma koy jéem ndax damaa gis nit ñi di jéem di wax nangam nangam nangam mm-hmm. am na loo xam ne bu suñ borom bu la ko suñ borom wane mm-hmm. doo jéem ci tali yi di ko wax waaw loolu mbirum baatil la waaw nit ki nag ci kon bëgg naa nga xuus parce que suñu seexu naa mbàkk kajoor dégg naa xeetu seet yàlla lim la ci may bëri na ba ci seetu sëy ba ci sax seetu tukki dégg naa nit day bëgg a tukki ñëw nga seetal ko génne loo ko sarax mu déposé ñu may ko visa waaw loolu lu am la sëñ bi seet moom képp ko ma ko defal ci àdduna ba xam sa tabe xam ban biddiw nga bokk li ma la cee wax mbindeef mënu koo dindi boo fa jaaree fa ma lay teg boo fa tegoo wallaahi wa rabbul kaxam da nga ci gisee njariñ ndax nit ki dana tey ñëw tey bis bi tey mu war a faatu tey ma seetal ko ne ko jénnal sarax nangam ak nanga boo ko defee suñ borom yokku fanam tey sunkoo mii ñu tëj nii tey tey maanaam tëj gi tey amul benn sarax boo xam ne mënoon na koo fànq maanaam dara mënu woon a tee Sonko dugg kaso woon a fànq dugg kasoom nii lu bari ñëpp na jéem nañ ci luñ man waaye mënuñu ko woon loolu mbirum baatin la dafa am lu lalu ca biir. loolu mbirum suñ borom la moo tax nit ki boo ko xoolee ndax man mii de wax yow fatu na euh, fatu naa ay fan. ngir bëgg a xam sarax bi mënu ma koo xam. te loolu bëri nañu jënd fii naan lii mooy fànq sarax bi lii loolu mënu koo fànq. léegi daal li ma leen mën a digal. lii jénn Sonko. duy caaxaan de. waaw dama leen koy teel wax mooy lii jénn Ousmane Sonko fee nekk. duy caaxaan waaw seet dëgg moo koy maye nag mm-hmm. xam lan mooy dëgg-dëgg sarax ma nga jénn ko mm-hmm. ku ñëw ci man danaa la wax sarax ba koy jénn nga def ko mu jénn te buñ koy def muy jénn muy jénn sarax ba koy jénne su ma koy suñ koy wax ñu koy def muy jénn loolu mu amul sax ma dem te ñëw waaw mais Serigne Cheikhouna Mbacké Kajoor euh, dafa am benn liggéey boo xam da koy liggéey as butéel la nga ne ma bisu tam xarit laa koy liggéey bëccële gis naa ne bëri na ci kër gi nga ne ma ku ko jëfandikoo sa àdduna mën na faa ah, jaaree jàng euh, sëñ bi lii boobu nan la waaw sëñ bi lii nii maa ngi koy liggéey ci ñaar fukki euh, ci ñaar fukki fan yi tam xarit biñ tam xarite ba am ñaar fan uh-huh. ci lañ koy liggéey waaw bokkut ak bisu tam xarit bi lii ci ñaar fan yi ci lañ koy jëfandikoo ci bisu ñaar fan yi uh-huh. ci lañ koy jëfandikoo uh-huh. lii wallaahi wa rabbul kax ba bis boo ko laalee soo toogee da ngay am xaalis force alal moom da nga koy am bu dee da ngaa yor place bëgg di jaay muy jar soo laalee jaay soo xëyee dëkk bi dëgër mun a am dara defal nii sa loxo nga dugal nga xool bu xëy jant bi soo ba ngoon te laaloo ma ma dagg sama kurus xaalis kese ku taxaw jóg moo gaaw ci taal doomu aadama laal wax nga ko mhm. bis bi gis nga ni mel nii bis boo xam ne boo ca koy jëfandikoo bis boobu noonu mhm. wallaahi boo yàqaloo woon ay alal nga doonoon koo xam da ngaa yëkkatiku sa alal lépp maase daal di daanu suuf sa entreprise yëpp daanu soo ko amaatee bi deel bi lii mu ndaw ndaw nii mën naa defal sa adduna lépp ba mu jegaat lépp loo ñàkkoon da nga am incha allahu taala euh, sëriñ naa Mbacké Kajoor euh, tey damay waxtaan ak yow ci néew kattan nga ne man man joxuma ci nit euh, looy naan joxuma ci looy suuroo li ma lay jox da nga koy takk soo ko takkee dan da nga sëy sëy sëy sëy ba sa xool sedd sëñ bi ay xeeti fas yi ban moo ci fasu néew kattan bi waaw bii nii mooy fasu néew kàttan bi bii soo ko takkee sa ndigg wallaahi warabul kax ba danga nga sëy ba yëg ne sëy nga boo ko takkee jigéen goo tiim mhm. mooy daw waaye yow doo daw waaw mhm. saa yoo bëggee noppi nag danga koy tekki mën a yegg sa soxna waaye tànk mi ngi ci sa ndigg doo noppi doo déet mi ngi sa ndigg doo daan. amul effet secondaire fas. amul benn effet secondaire xam nga da ngay gis ñoo xam ne dañuy naan ñii naan la sama damay naan garab gi su ma ko jëlee suma noppee ma am jàmm. damay feebar sama bopp bi di mett loolu laa fi bëgg a jëlee. lii fas gi tant que mi ngi sa ndigg. wallahi lazim yi da nga sëy ba yëg ne sëy nga. te bis bu tëdd amul benn effet secondaire. boo xam ne da lay gàllankoor. saa yoo bëggee sëy. takkal nga sëy ba doyat tekki soo bëggee daan da nga koy tekki mën a daan. waaye tant mi ngi sa ndigg doo daan. tamit bu la fekkoon nga néew nga yoom laa wax yoom mënoo dara ci soxna mm-hmm. wallaahi day jug boo koy takk mu gis muy jug waaw mm-hmm. ah, bu fekkee fas gu xonq gi nga xamante ni dafa ànd ak lu orange waaw lii fasu noob la mm-hmm. waaw noob dégg naa sëñ bi yaa ngi ci def lu parce que am na ko wax ne ma Mbàkke Kajoor na jëmm ju fa dëkk ah, ne ma ah, surtout sëñ Tuubaa la mais kooku yàlla may na ko lool ci wàllum noob yaakaar naa loola tamit bëgg naa nga andi ci leer waaw noob nag dama ci ñëw tuuti mm. ndax dama cee dama cee rus daal mm-hmm. li tax ma rus ci muy dafa mm-hmm. bëri doomu aadama yoo xam ne bi set dañ may woo téléphone ne ma sëñ bi mm-hmm. dugg naa fu ne joxe naa sama xaalis fu ne liñ may wax du ma ko gis ñu ma noobu vint quatre rek ñetti fan ak ñeenti fan man noob googu du ma ko liggéey gii juróom-ñaari fan lay am boo ko takkee mhm. wallaahi wa rabbul kax ba waa ji moo lay woo bu dee jigéen gee abonné la wan la la ginnaaw mhm. moom moo lay woo téléphone ci boppam ñetti fan kii juróom-ñaari fan laa la may mu wool la boppam téléphone na la jéggulu la bu dee jigéen jigéen tamit noonu bu dee góor tamit noonu mhm. bu doon sëy boo xam ne daa tas ba ñëpp ay at féewaloo kenn xamutu sa morom dara billaahi bu ci moo jotee seen tur ba ma def ca la ma def wallaahi laxan si sëy bi day defarwaat ci force te juróom-ñaari fan du ko jénn juróom-ñaari fan du ko jénn sëy ne waat cocc delluwaat fa mu nekkoon bu doon da nga am euh, euh, gone goo xam da nga koo yar mhm. toppatoo ko ba mu ba ba ba takk des ci mhm. mu bëgg laa wan tànk naa mhm. su ma la defalee lool benn góor du ko takk ku dul yow waaw beneen góor du ko takk ku dul yow ay ci mbokk yi numéro téléphone Serigne Cheikhouna Mbacké Kajoor mi ngi noonu affiché képp ku ko ci woo dana ko jot euh, sëriñ bi lii gis naa ne fonk nga ko lool lii lii pour ci ñi nga xam ne maanaam suñu mbokk jigéen ñi laa ko liggéeyal ak mbokki góor ñi nga xam ne dañoo amee lu mel ne ndoxum siti mm-hmm. ak émorite ak yaram wuy xus nii di def ay heure mm-hmm. laa ko liggéeyal mm-hmm. lii da ngay tijji rek laal ci nii soo tijjee laal ci nii ñetti fan doo fa gisate doo doo fa gisate tërgën bu doon da lakk sax ba ñor xom jëlal lii nga liiw ko ci nga xool day wér carrément doo ko day ñuul day ñuul kuk ba dootoo kiiwati dootoo ko fang wala ka am dafa am leel xànq yooyu lii ngay jël diw ko ci day amaat saxaat karaw ci ci jàmm insha allahu taala lii nag dafa bëri ñu ma ko doon laaj ne ma sëñ bi damay am ay leel ak wala ay heure damay sonal ak mhm. comme jigéen ñi xam dañu dem xeesal daal di ñuul seen kii lakk pointe mhm. bi buñ ko jëlee mel nañ meloon insha allahu taala mhm. soob yàlla bu dee ndoxum siti mu nekk ci biir ah, yaramu mu nikk wala hémorroïde bii moo ci gën a gaaw biteel bi bii mi ngi faj juróom-ñaari jàngo yo juróom-ñaar fukki jàngoro yoo xam ne mi ngi ci biir doomu aadama muy hémorroïde ballonnement euh, ndoxum siti hémorroïde ak euh, maanaam euh, comme maanaam tànk yoo xam day ruux di metti di metti mu nga xam ne mënoo dox damit da koy dindi ba mu set wicc ak góor goo xam ne ndoxam góor ndoxam dafa yolom nga xam ne maanaam bu bu yeggee bu yeggee rek day gaaw daan bu jëlee lii tamit ci kàttanu yàlla yàlla koy dindi bam set wicc insha allahu taala ba ki nga xam ne sax daa amee maanaam jabet su ko jëfandikoo da day wàcc suukar sax mën na koo jël ñëpp mën nañ koo jël waaw am na ñoo xam a yaa am cancer yow mi amee cancer boo jëlee lii mu wér am na ñoo xam ne bu ñu lekkee kaan loolu lañ ko estomac moo ci gën a gaaw estomac booy jël naan maq jàlle bu la neex lekkal buñ ñu la dox potukaan yi nga lekk te du la wàññi dara waaw lii ki ci gën a gaaw boo ko jëlee rek mu faj la ba nga wér jeex tàkk incha allah. Euh, sëriñ bi bu dee nit ki nga xamante ni dafa bëgg të aaru kenn du man ci moom dara euh, kaaraange gu wóor lan moo ci gën a gaaw. waaw sëñ Dégg loolu ngay wax yaa ngi wax lu am solo muy kaaraange jamono jii dañoo toll ci jamonoy kaaraange mhm. jamono jii réew mi toll. fii ñi présidentielle yi di ñëw. Mhm. bépp ndaw bu ci amut kaaraange. Mhm. ñëw ma say waajur de. ndax. Euh, mystique bi dafa fees ci dëkk bi. deret ji dana bari. fan yi déggoon nga fi accident bu metti boobu noonu xewoon vingt vingt cinq mois vingt trois mois xaw gis nga ñooñu faatu woon ci. dana gën a bari. nañ wut kaaraange. te nawatu ren bii dana metti lool. nañ ñaan yàlla. mu sedd waaye dana metti de gis naa ci lu doy waar. waaw nañ def sarax. bopp bu ne mhm. ku ko mën a jëndeel ñaari kilo yi dugub mhm. na ko def saraxe ko wallaahi warabul kax ba nawetu ren bii dana métti te fan yii mhm. dana taw taw boo xam ne ci biir ndakaaru gi ñëpp danañ jooy dana taw daw taw bu doy waar dana taw de taw bu doy waar boo xam ne ñëpp koy marché kii waaw nag tiit naa ci nag tiit naa ci lool na ñaan nañ nañ nañ nañ nañ tasa ci yàlla def sarax yi mu sedd incha allah ah. te kaaraange gii ne ma leen ciy jox bépp ndaw boo xam ne yaa ngi du bëgg a mucc mhm. fekk fi dara mhm. na nga jug ci sa bopp wutub wokkub lam bi mooy comme jaar bi ma takk nii nga xam ne ma nii lay dem doo man kenn du man ci yow dara boo ko takkee kenn du man ci yow dara ku la liggéey faatu ku la liggéey dee ku bu la sa baay liggéeyoon wala sa ndey wala say sa soxna wala say doom liggéey la mhm. duñ ko fekk wallaahi kaaraange gi fo ma ko jëlee la moo tax. ak la ma ko jotoo. waaw fa laa ko jëlee. Euh, sëñ naa Mbacké Kajoor euh, bëgg naa ñu waxtaanee këyit papier euh, nit ki am jafe-jafe tukki parce que ambassade mayetuñ donte boo yu bëree bëri jaar nañ ci géej gi ba sax ba ñàkk seen bakkan ku bëgg ay këyit nii. waaw ki bëgg këyit. Ah. kooku fukki fan juróom laa ko may mu am. incha allah li may def. ci jooni jooni laa koy def mu kii ko du ma mm-hmm. ju yenn fukki fan ak juróom te amati kayit mm-hmm. bu doon ku déposé ba noppi sax mu toog weer ñaari weer wowuñu ko dama naan ko année ko 15 mm-hmm. jours yooyu ma koy wàññi day wàññi bis ya te te dëddoo amul kayit su nekkoon Sénégal gi bëgg a dem li may def su ma ko defee la wallaahi kenn mënu ko du dee moo koy tee dem bu nekkoon bitim réew bëgg ñëw fii dee moo koy teree ñibbisi. Mhm. te du jénn 15 jours at moom moom dana ñibbisi Sénégal ci force at mi ma koy defalal mbir mi. ci at moom du ko jénn saa yu bëggee ñibbisi ñëw. Mhm. te duñ ko may kayit bu ndaw. sëñ bi euh, bu dee koo xamante ni dafa lekk lu bon wala sax ay njabar nekk ci yaramam lan moo gaaw pour dindi loole. waaw lool kooku su ñëwee. li ma koy def fi ma ko def saa si la koy wàccu. waaw bari na ci ñoo xam dañoo lekk lu bon seen biir yi di metti ñi wallu ñu naan seytaan leen jàpp wala ngelaw wala dëm mhm. loolu jàpp leen mhm. luñ leen di naaw te ngelaw luñ leen di dóor la mhm. mu doon air seen biir nga xam lekk bon lay doon ñaara ñu defal ko cim soow wala ñu defal ko loole kook soo defee fi nga toog ci saasi bala nga fee jógee li nga lekkoon lépp nga yàbbi ko ba mu set wicc wicc am na ci boo xam ne sax maanaam raxas yaram booboo ci gën a gaaw boo xam ne moo ko joxee nii maam buñ la liggéey deful la dara nga bëgg sa yaram set sa yaram diis mhm. ci yooyu moo ci gën a gaaw loolu bu ma la ko joxee moom li ma lay ñaan bul xëy mhm. lépp lay dindi sa yaram bam set wicc ba nga mel ne ni la sa waajur jigéen jure woon ngay mel ne kenn musulaa liggéey waaw liggéey ba nga xam ne benn fana la tee faatu sax boo ñëwee dindi loolu dundaat incha allahu taala sëriñ bi secret kaso ku tëj kaso ñu bëgg mu génn ca kaso ba euh, boo xoolee tamit sunkoo tëj gi ko tëj tamit loolee tamit métti na Sénégal yu bëri. waaw sekkorob kaso bi ma ci yor. Mm-hmm. su ma koy def. Mm-hmm. maanaam lekk ko fa. waaw ci saa si mu génn. wala ñi ñi ñi ñu ñu ñu woole ci yoon nga war a dem. nga ñëw ci man. Uh-huh. booy dem ñu lay bàyyi. loolu Sonko lekkoon mën naa génn ci kaso. buñ ko ko joxoon nii wallaahi du ko fa demee toilette. ba ko fay tuuree ndox sax. du fa dem tuwaal lii ma lay wax su ma ko joxoon ca kaso ba fii ma nekk nii li may bind dama koy bind rek ñu jox ko mu ba lekk ko xool du ko fa tuure ndox du fa demee toilette ci lu wér la ak ku manti doon nag laa la wax Pastef ñu ngi xamal ne eh, dañ ko eh, suspendre eh, du amati loolu tamit yaakaar naa dara gënu ko metti mbir mi gisoon na jaay doole xaw ci am metti na de dëgg yàlla metti na lool lool lool li ma ciy wax lii moom ñi ma koy lancé muy waa kii bi nañ am yërmande nit ki yilif lépp rek bul tax nga moom lépp lii nag ñépp xamoon nañ ko man mii xamoon naa ko xuma ñëpp waaye man mii lii lépp xamoon naa ko tey mënoon na maa jénn fii wax lii xew lépp ci réew mi waaye damay doomi kilifa am ñu topp sama ginnaaw bëgguma di def loolu waaye nag Sonko mii nga ñaana yàlla fee mu nekk yàlla na ko fa yàlla jënn te dana jënn ci jàmm incha allahu taala waaw na ñëpp xel dal nag ñëpp xel yi dal waaw na xel yi dal waaw dinaa téye may téye su ma fa xel yëpp na xel yi dal xam ne la war a def dañ ko def incha allahu taala ñu tàggatoo ak askan wi lay suivre ci MPROD TV waaw sëñ jég macha allah seen kii bi rafet na lool waaye nag di baaxe ñi nga xam ne ñoo ma doon laaj cangatu cat gi cat waxuñ ci cangatu cat gi mi ngi fi mhm. ñi ma ko doon laaj ñaam sëñ bi cat dañoo sonal ndax dafa bari doomu aadama moo xam rab rek mhm. moo leen tee am alal moo leen yàqal seen lépp mm-hmm. cangat gaa ngi fi mm-hmm. bis boo ko sangoo cat rab dara dootu mënati ci yow dara lépp lu fekkoon ci yow ba mu teelaa def am dara jeex na nit ñi loolu rek a leen téye mm-hmm. te bu dañee ci ñoom rek ñu am jàmm wallahi buñ ko amee rek am jàmm mu loolu moom maa ngi koy baaxee ñëpp incha allahu taala ajo Serigne Cheikhouna Mbacké Kajoor dégg ngeen waxtaan wu am solo wi mu waxtaan tey euh, doon ko jëmale ci li dal ci ginnaaw Ousmane ko waaye dal ci képp koo xamante ni bëgg nga Pastef wala àndoon nga ak euh, Pastef yaakaar naa tey naqar ak tiis bi nga xamante ni yeewoon nañu ko dara gënu ko metti joxe na ci nag ay solution loo xamante ni bu ñu ko defee. Sonko mën naa jóge fee mu nekk ay ci numéro yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot yéen ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah